li nga xam ne day dox ci biir sàppe yi fekk nit ñaa ngi julli wala imaam di xutba ajjuma moom itam muy dox ci biir sàppe yi di toog ci biir jumaa ji bokk na ci li ñu tere euh, dafa gën a woyof tuuti ci kiy wut palaas boobu toog waaye xam nga ki mu araam ci moom nga xam ne moom araam gu àgg ci war laa duma la mooy ki deful loolu di wër ci sàppe yi moo xam day laaj dara moo xam day def dara waaye biir sàppe deesu ci dox kanamu kuy jullit kenn du ci dox jamono bu nañu di ko wax xam nga léeg daa xew ñu naan mbooloo sàngam ñooy defar sàppe yi dañ ciy roy Touba te bokkul gi nga Touba gi nga kay roy kay kañu ni mooy defar sàppe yi defar na ko laata imaama ñëw te defar bu yam la nag ndaxte nit ku ànd akum xelam magum jëm Moustapha Kay dugg ci jàkka ji te xamoo koo war a taxaw bañ di la ko xamal war na yóbbu école bu ñu limaan taxawee ne yemale leen sàppe yi te yow ba tey yaa ngi ne ngàll ci àll bi te xamoo luñ sàppe da ngaa war a génn jàkka ji kon amul benn njariñ mbooloo mu jóg di di di déranger nit ñi léeg-léeg nga joggi portable bu jàmbur mbaa xasiid ak jàmbur mbaa nangamu jàmbur ngir ni da yéey da defar ay sàppe loola bu boobaa dara baaxu ca li baax mooy sàppe yu ne nett yilimaan jàngale ko te nun ñëpp jàng nañ ko sax avant ñu ñëw xam na ni yilimaan bu xasee ba taxaw ñi ci des ñëpp seen mbagg yi daal jàppaloo yemale leen mbagg yi moom xaw ma ko déggul waaye du Sénégal ñëpp a ko mokkal ñoo ko gën a mokkal sax ku leen koy defar ñoo ko bu boobaa jaadootul ngay taxaw julli dañ cee laaj teewlu te teewlu lu la galeen rek nga fàtte lu la galeen nga fàtte saa boo jaaree ci kanamu nit ki rek dagg nga appitéem mooy mi ngi doon xalaat yàlla mi ngi doon xalaat bàmmeelam mu ngi doon xalaat nangama nangam nga jaar ci kanamam yàlla boo laal daraam nag yàq na lépp ko te julli dañoo dem bani la bul def dara ci sa poos lu lay lëjël bul teg sa ginnaaw lu lay lëjël léeg-léeg ngay julli si yor dàll yu seer ñu la dal yooyu na nga ko teg fu wóor dañuy bañ sa xel di ca dem maanaam li ngay denc na doon fu wóor poos bi bul ci def loo xam ne boo sëgee mu wat bu waddee faaw sa xel bi nekk sa weer yi sa portaabal bi bul ko teg ku nit di jaar ku la jub li ngay jëkk xalaat mooy mbaa tànk bi du jóg ci kaw de weer yi kon xam sa xalaat dem na te dañoo bëgg julli nga ni dégg di xalaat yàlla rek dinaa joxe benn masal boo xam ne nii bu kéemaane na nag jamono bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam da daan tere taswii tas taswiixul masaajid aw sax rafatul masaajid rafatal jàkk rek yonente bi da koo tere woon donte léegi addi bépp ci maase noo ci man hmm? lu taxoon mu di ko tere dañuy bañ ngay julli di sala di xalaat di ko rafetaay bi di xool jàkka ji di xool nangam loolu lañ ci doon bañ xëy na booba ñoom itam nag dañoo àlle waaye léegi bi nga xam ne taaxee doonu wala lu rafet jàkk jàkka ji boo génnee gis ko ci mbedd mi léegi kon loolu lu nu yitteel waaye ba bisu tey nag des na fi barab boo deman ca barab yu tedd yee ñuy makkatal mu karama yow gan jàpp naa ne faaw rek sa julli yàqu de ndax moom lii gis nañ ko ba tey waaye fee moom di nga loo ma sa gis aw bindin xamas ngaa gis xubba bu jekk ba yàgg muy dox di dem xubba bii nga di ko xool ba yàgg mu ni ño ket wi ba naaju kese des ci te boo demee mbind na fekk ko fa loolu bu dee kaw kaw bu mel ni man du téen il faut mu téen kon bu boobaa yàq nga tuuti sa sama julli julli nit ki ko konk dox diggante bu soree sori moytul def dara lu ko yàq kon kenn du jaar ci biiri sàpp yonent bi sallallahu bu ma saa seen kuy dox xutba kenn du ci wax waaye danaan eh toogal rawatina nag ñuy xutba xutba moom bu ñu imaam xasee yéeg min bar amatul yëngutu amatul defar amatul kuy wax sax nga ko bàyyil wax ji kuy def aw najoore ba ko bul ko wax ndax boo ko waxee yem ak moom rawatina nag nga jekki-jekki ni yomb ci biir jàkka ji ba nit ñi seen la nga delluwaat <laughs> kooku sëñ bi garaaw na trop nañu moytu euh, <coughs> jàkka ji day bees moo tax yooyu yëpp dañ koy jàng rek nag dañuy jàng te mokkal a gunu te yooyu yëpp day am <coughs> kon baare sàkke yi sàppe yi dox ci kanamu sàppe yi imaam di xutba nga mel ni xutba di dugg ak a génn di yéeg ak a wàcc loolu nañ ko moytu